wax naa ko léegi ci kàllaama nasaraan maa ngi dëkk kër maam El Hadj Modou Ndiégène di doomu tafsir El Hadj Makhtar Mbaye euh, wax nga dëgg damay fete ren tàmbali naa ko ajuma bi ñu weesu sama juróom fukki at yi aar li ma liggéey ci aar muy lu am solo ma di ci sant yàlla ndax euh, ñu bari ñu bu ñu leen ñu ngi leen sargal ci bi ñu génnee àdduna man ma am chance yàlla xéewale ma ñu sargal ma bi may dund loolu nag euh, dama ci sant yàlla te boo amee gan da leen di yóbbu sa kër ndax li olof yi di wax ni bala nga xam nit nga dem ba këram man Thiès gi manufacture euh, sampo depuis 66 je crois directeur fii laa dëkk fii laa bokk moo tax bi ma amee sama gan ñu nga xam ne fukki réew benn ñoo jógee ci biir Afrique ndax dama ko tënk ci biir Afrique ñi ma invité ñu ñëw di fi am ay fan pour ànd ak man def exposition wane suñu liggéey def ay conférence waxtaan si sunu suñu liggéey ndax nu bari ci dëkk bi xamuñu bu baax mbirum aar def nañ ne aar daal ñu si bari ñuy font la wala ñu mel ni man la nga xam duñu soloo comme ni ñiy soloo wala dañuy defi rasta loolu lañ teg artiste waaye aar liggéey bu noble la liggéey bu am solo la liggéey boo xam ni dafa laaj nit ki joxe boppam aar damay wax ni boo ko tarbiwul doo ci doo ci sori aar dañ koy tarbiwu ndax daanaka mbirum ni sëriñ mel walla labbe bi mel ko ci diine artist bi noonu la war a mel avec la ak àdduna donc euh, du mbirum caaxaan ñu si bari sax day dañuy dem ba am na ñu seen xel di dem waaye loolu yëpp dafa nekk kànd goo xam ni boo ci duggee dafa la nga cay def ci énergie xaw ma nu ñuy waxee énergie ci gi wala wala la nga cay def daal ci kartan dafa day ëpp sam xel loolu moo tax ma ànd ak ñoom tey ñëw fii ci manufacture manufacture bii nag dama fee bokk ndax ni ma ko waxee léegi 78 la tàmbalee liggéey ak ñoom ba yaakaar naa ñaari il y a deux ans wala ñetti at ci la mujj joxe ay carton fii ñu sélectionné ko ba ñu yaakaar naa ni di ma ràbb parce que fii këru ràbb la ni ñuy ràbbe sër yi njaago yi daan koo tissé nu mel noonu la ñuy ràbbe waaye ci beneen fànn boo xam ne dafa gën a moderne gën a spécial ci bu ñu nee ràbb rek loola ràbb la lii ràbb la mais li ñuy ràbb fii bokkul ak na ñuy ràbbe sëru njaago yi ma bokk fi nag ndax loolu di liggéey ak ñoom kon mat na ñeent fukki at ak juróom wala mu ëpp ko tuuti may liggéey gu am manufacture booba bu ma ñëwee ñi fi nekkoon cartonnage ñoom Ansoumana Diédhiou ñoom Daouda Diouk ñoom Goudiaby ñoom euh, Tafsir mi nekk Tafsir mi nekkoon lycée euh, kii seen nga xam euh, sama cousin bi maa ngi fàtte turam donc ñu bari laa fi daan fekk ñoo xam ne samay moroom lañu woon bu ma ñëwee cees ndax weekend bu nekk bu ma daan ñëw bu ma jëlee oto ba bu garage su mu ngi fii cinéma kii bi nekk bu mu wàccee foofu dama naan bala may dem sama kër damay dem waxtaan waxtaani ak sama xarit yi bu ñuy wàcc ma wàcce ndoog ñoom bu fi nekkee altine wala talaata itam fii lay ñëw di waxtaan bu ñuy wàcc ma ànd ak ñoom bu ñuy gont ma ànd ak ñoom ndax daaw da jóg sama xarit la woon bu dë bu dëgër dëgër dëgër loolu tax na sax ba wàccees ñu bëri dañ ba naan ci mbedd mi eh, MSAD defe nañ ni manufacture lay liggéeyee mais dama leen di wax toujours ni damay liggéey ak manufacture waaye nekkuma agent manufacture daanaka sax agent <laughs> manufacture la ndax sama liggéey dañ ko fiy liggéey kon xëy na dan maa jëlul di ma fay par weer waaye am na fànn gu may liggéey ak ñoom goo xam ne itam dama ci gis sama bopp sama xarit bi nga xam ni moom laa doon présenté léegi di wax ni mooy administrateur euh, cher de littérature et des arts africains ci académie royale du Maroc sànq bi ñuy dugg bi ñu xool bi ñu xoolee tapisserie yi benn agent di ñu jàlloon je crois di ñu expliquer ni ñuy tiisee ak loolu yëpp xelam dafa dem ci les comment dire comment culturel les les les les choses qui dérivent de des produits culturels les industries culturelles voilà je voilà je m'y retrouve donc loolu dafa am solo ndax euh, ki fent kër gi muy président Léopold Sédar Senghor yaakaar naa ne 66 la bu ma juumul ci jamonoy festival mondial des arts nègres ci la ñu ubbi kër gi mu ne ma Eugène Ebodi mi ni ma réew bu nekk waroon na am lii ndax euh, lii dafay tasaare wala wasaare dafay yaatal li artistes yi di liggéey ak artisans yi sax parce que fii dañ fiy def ay tapis de sol ak tapis prière euh, donc artisans yi aussi ci lañ bokk ndax loolu liggéeyu artisan la ci duñ koy waxee tey ci ci créa ci création bi ci fent bi mais artistes yi ñoom yi ñuy defal loolu la ñuy tiise tapisserie yi classique moderne yi nga xam ni ñi koy liggéey fii ay ñu am solo la ñu ñoo xam ni ñu si bari ñu ngi génne Aubusson ñi xam adduna bi xam France ñan ñooy def tapisserie xam nañ Aubusson xam nañ Gobelin xam nañu ay bërëb yoo xam ni ba Mamadou Wade ma fi nekkoon sax yaakaar naa jàngee na moom Union soviétique donc am nañ fa ay techniciens yoo xam ni tapisserie moderne léegi kenn dàqu leen ko bu ñu wàccee tapisserie yi sànq bi ma gisee finesse bi ñu koy liggéeyee ak àq bi ñuy jox liggéey bi muy un travail de chaîne nag kii day def lii kii def lii kii def lii bu ñu ko wàccee ba di ko dagg comme li xew tey da ngay waaru xam ni kon am nañu ay liggéeykat yoo xam ne. nguur gi jàpp ci te dégg naa directeur ni président de la république mu ngi ciy jàkk donc loolu dafa nekk loo xam ne day jox doole dafay gunge vraiment liggéey bi ñuy def fii te ñi ko am nag ci àdduna bi bariwul Afrique moom yaakaar naa ni après Sénégal dégguma feneen fu ko am maa ngi bàyyi loolu moom dama koy bàyyi ak directeur xëy na moom ci gën a xam. dañuy rafetlu euh, gestu Zulu Mbaye euh, dans le cadre de la commémoration 50 ans. ses euh, cinquante ans de vie artistique mu xalaat jóge Dakar ak ay ganam ñëw fii bésu dimanche pour visiter manufacture won leen dëkkam mais aussi won leen patrimoine bi nga xam ne moo nekk fii ci manufacture euh, moom wax na ko yàgg na di liggéey ak manufacture parce que manufacture euh, ñun dañuy liggéey ak artistes yi ku nekk day indi maquette ñu tànn ci tànn boobu nag bu ñu paree ñu signé contrat ak artistes bu ñu signé ba pare def con euh, euh, réalisation tapisserie transformé ko en tapisserie donc pour ñun collaboration boobu dafa am solo léegi ay artistes yi nga xam ne euh, ils sont reconnus au niveau international Sénégal di rafetlu seen seen seen seen importance au niveau de la scène artistique pour ñun loolu dafa am solo ñoom mu jël cinquante ans après ñëw fii euh, di témoigner collaboration bi nga xam ne moom la am ak Manufacture. Professeur Eugène Ebodé, je suis originaire du Cameroun, je suis africain et je travaille à l'Académie du Royaume du Maroc qui m'a fait l'honneur

comme étant un moteur, le sien. Je veux reprendre euh, spontanément l'idée que nous avons aussi à saluer à la fois l'ancêtre et l'artiste. L'ancêtre d'abord parce que nous sommes ici à Thiès, une ville qui a un passé, Et ce passé est lié à ceux qui ont été ses bâtisseurs. Et l'ancêtre est donc au départ, il est aussi dans la continuité, il est dans un continuum. Et cet ancêtre s'est incarné dans la figure du poète président, comme on le dit souvent, le président Léopold Sédar Senghor, dont on a salué à la fois l'action, mais aussi l'initiative qu'il a prise de pouvoir faire en sorte que, à partir de Thiès, une industrie culturelle puisse produire, puisse proposer des réalisations au monde. Le président Léopold Sédar Senghor a été également membre de l'Académie du Royaume du Maroc. Il a été, avec un autre de ses frères africains, d'autres de ses frères africains, dont le président Amadou Aïdjo. Et je salue ici cette, euh, ces figures qui sont des figures ancestrales. Et ces figures ancestrales ont souhaité qu'elles ne soient pas les dernières. C'est pour cela que dans la continuité, vous avez à la fois, et je dois saluer, le maire actuel de Thiès, qui est un philosophe et qui est un continuateur qui est quelqu'un qui relie, qui est un enseignant, un éducateur. Et comme éducateur, figurez-vous que je suis aussi venu ici par euh, la chaîne des continuités et par un éducateur, par un collègue, par un frère de l'esprit et de la transmission, Pape Massensen. Il est dans la continuité et cette continuité nous entraîne dans un lieu qui a été formidablement raconté par euh, euh, Zulumbaï, qui a dit qu'il était lui-même natif de Thiès. On a souvent pensé que euh, on n'est jamais prophète en son pays. Vous voyez qu'il en est le démenti. Il est l'illustration qui nous propose autre chose, qu'on peut être reconnu, connu célébré par les siens. Et tout ce qu'il a raconté sur euh, son aventure avec les manufactures de Thiès sont aussi un message à adresser aux jeunes de Thiès, aux jeunes du Sénégal, aux jeunes d'Afrique, que leur production, le génie que les ancêtres ont sémé, nous devons le récolter. Pourquoi Parce que c'est notre présence au monde, c'est aussi la manière de faire en sorte que le génie créateur ne tombe jamais, mais qu'il soit, comme le démontre cette manufacture de Thiès, qu'il soit une chaîne du plus petit au plus grand, de l'ouvrière au directeur qui nous a accueillis, dont je salue l'action et les performances, eh bien, que le produit de notre génie, de notre intelligence, des legs, des héritages qui nous ont euh, été donnés, eh bien, puisse se propager, puisse être entraîné dans, dans un horizon qui, lui, doit porter un concept. Ce concept, c'est celui qu'on a mis en œuvre aussi à l'Académie du Royaume du Maroc, le décloisonnement. Le décloisonnement comme euh, horizon de générosité comme horizon de fraternité. Et c'est les artistes qui le mettent aussi en œuvre. Et Zulumbaï a bien raconté ici que c'est une chaîne artistique, un continuum territorial où plusieurs pays sont rassemblés autour de cette fête qui est donnée en l'honneur et de Thiès et de l'Afrique. Donc je voudrais vraiment ici vous remercier de nous avoir accueillis de nous avoir euh, invités à faire en sorte que la fête soit commune. Et ce n'est pas un hasard si euh, le Royaume du Maroc est l'un des coproducteurs de cette célébration. C'est parce que du nord au sud, nous n'avons qu'un seul pôle, c'est la lumière qui nous a été donnée et que nous puissions la propager dans un monde où les ténèbres avancent. où le pessimisme est roi et où souvent la dégradation de l'Afrique a été à l'ordre du jour. Et je n'en dirai pas plus puisque nous avons apporté la démonstration et Thiès, les manufactures de Thiès en sont la preuve. L'Afrique est au travail, l'Afrique produit, l'Afrique pense avec un A et l'Afrique pense, réfléchit avec un e. pas seulement pour elle-même, mais pour notre humanité tout entière et aussi pour que la création, la chaîne de la création, qu'elle parle à la fois des hommes, mais qu'elle n'oublie pas la nature, et elle est ici présente, elle est active par ces cocotiers qui nous ont accueillis, elle est souriante par euh, euh, le rayonnement de son paysage, la grandeur de ces arbres. Et nous saluons toute cette création parce que nous avons un seul message, c'est celui de la reconnaissance et celui de la gratitude. Merci beaucoup. dañuy rafetlu euh, geste Zulumba yi euh, dans le cadre de la commémoration 50 ans de ces de vie artistique mu xalaat jóge Dakar ak ay ganam ñëw fii bésu dimanche. pour visiter manufacture won leen dëkkam mais aussi won leen patrimoine bi nga xam ne moo nekk fii ci manufacture euh, moom wax na ko yàgg na di liggéey ak manufacture parce que manufacture euh, ñun dañuy euh, liggéey ak artistes yi ku nekk day indi maquette ñu tànn ci tànn boobu nag bu ñu paree ñu signee contrat ak artistes bu ñu signé ba pare def con euh, euh, réalisation tapisserie transformé ko en tapisserie donc pour ñun collaboration boobu dafa am solo léegi ay artistes yoo xam ne euh, ils sont reconnus au niveau international Sénégal di rafetlu seen seen seen seen importance au niveau de la seen artistique pour ñun loolu dafa am solo ñoom. jël cinquante ans après ñëw fii euh, di témoigner collaboration bi nga xam ne moom la am ak Manufacture. directeur général euh, merci ñu souhaite encore comme ni nga ko waxee rek suñu mbay mu yàgg si loolu te wér nga tamit Manufacture jëm ci kaw ca kanam professeur euh, un grand merci à vous mais devant vous directeur général je voudrais wax merci à à à la presse. parce que c'est très compliqué ce dimanche. C'est Tout ce qui se passe à Thiès, ils ont tenu à venir euh, donc couvrir cet événement. Je voudrais au nom euh, de l'Église de C'est ça,